xul sa biigi kumba faalo Ndigal Fall salaamaaleykum salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information Dakarnet votre émission lees waxul vous revient di émission bi nga xamante ni voilà yéen a ko doon gis fi nga xamante ni moom mooy Dakarnet ñu fiy faral di relater wala sax émission bi li ko tax a jóg mooy di relater information yi nga xamante ni moo gën a fës ci semaine bi euh, ma si ànd désormais ak ki nga xamante ni moom mooy Diarra jaara euh, di euh, sama présentatrice bu ñaawul bii euh, le beau sourire de jaara tey moom may gunge ci émission bi mais balaa ñuy sori dama koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet si Dakarnet si ñu ñëw léegi léegi ci yaatal bi jaara maa ngi lay nuyu. di la ziar di la ziar. di la <laughs> ziar. wax moo tax waaw gis nga xam rek sourire dafa baax ci jigéen. maa ngi leen nuyu di la sant. di di kontaan di toog ci plateau bi. di leen wax ñu egsi si seen émission les waxul euh, comme vu que actualité yi temps yi dafa xaw a danse yaa ngi mm. donc euh, il faut ñu waxtaan ci maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñu mbokk internet yi di leen wax. yegg si ngeen yegg si ngeen alors yegg si ngeen ce sont les belles paroles de Diarra de son vrai nom nekk ki nga xamante ni macha allah euh, mu ngi def liggéey bu am solo fi nga xamante ni moom mooy Dakar Net mais ñuy sori euh, wala sax balaa ñuy démarrer émission bi damay souhaiter joyeux anniversaire suñu collègue mais également suñu mag la suñu référence la ñu koy wax Ñatamba euh, borom RFM borom émission bi nga xamante ni voilà ñëpp a xam ci RFM macha allah Ñatamba loo dund doyul Ñatamba ki nga xamante ni moom mooy jigéenu jigéenu Boukounta Ndiaye di xaritam Ñatamba ñun waa Dakar ne ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire euh, looy wax Ndiatamba di jigéen boo xam ne référence la quand même. ci métier bi waaw waaw référence la ci mm-hmm. yàgg na fii te xama mm-hmm. boo ko gisee rek xam ni mm-hmm. dafa am dafa. dafa am classe. mën na lu muy def en plus ñu ngi koy souhaiter un. happy birthday di ko wax na dund. Mhm. lu mu dund dayul. lu mu dund dayul alors lu mu dund dayul la ñuy attaqué nag ah, émission bi directement dañuy ubbi émission bi fi nga xamante li nga xamante ni ah, moom mooy ah, li gënoon fës ci semaine bi bokk na ci mariage Ngaaka Blindé ak Fadel euh, donc voilà balaa ñuy sori déjà nag nga gisee mariage bi sëy bi ñaari xale. Ouzin kii mariage bi de moom. Mhm. dafa dafa dafa yëngal dëkk bi instant bi mhm. parce que. ni ngi gis ni nga ko luñ luñ dul woon xalaat la lu ñu xalaatul woon la mm-hmm. lu kenn gisul woon la comprendre nga Ngaaka Fadel nekk ñaari xale yu nekk ci milieu bi ñu respecté leen trop parce que defuñu fi lu kenn lu kenn war a voilà mm-hmm. depuis boobu ba léegi ñu ngi gis wax yi dem fii gauche mm-hmm. droite mooy loolu mais mariage bu neex la daal alors mariage bu bu neex la mais yow par exemple naka nga gisee parce que Fadel mi ngi wax ne ñoom ñaar génn nañ un à deux mois un ñu ko dundee secrètement noonu euh, bon il faut il faut nga am bopp ah, pour nga pour nga dundee ko waaw waaw dañ dañ ko dund parce que nga siiw di mhm. dund ku siiw yéen ñaar ngeen siiw ngeen war di dund relation pendant deux ans mhm. deux mois ngeen kenn xamu ko mhm. donc pour yow lan la la quoi lan mooy secret bi pour yow secret bi je vous dis que ni xam xam fuñ jëm la rek comprends nga parce que léegi la plupart ñii di fësal seen relation après duñ ci jëlee lu neex tey ñaar ñu siw lañ ñëpp xam nañ leen et pourtant doon nañ leen gis mais kenn nu la wax ni kii ak kii dañuy gëm parce que la plupart fois boo ko lâché danaan ngaa ko sama mag la sama papa sama sama lépp la comprendre nga te kenn xamul woon donc. dañ ci jublu woon lu baax moo tax. Mhm. parce mhm. mais staff bi tamit gêné ci ah surtout côté Ngaaka Blindé parce que comme rappeurs yi souvent dañuy am team dañuy am ay xale yu bëri ñuy àndal donc ils sont euh, ils ont ils étaient assez discrets en mhm. euh, ñi ko wër ñi ko ñi ko entourage am. dafa baax. parce que boo seetloo bu génnewee sax clip wala mu génnee dara. dañ koy teg ci yoon comprendre nga duñu am benn faay buñ ciy gée buñ ci buñ ci buñ ciy wane di nga xam ne kii am na am na am na ginnaaw dafa am ginnaaw te dañoo dañoo dañoo dañoo qualifié daal mm. parce que mënoon nañ xama ñii di kii muy am ay fit ci suuf yaa gën a xam mais jàppale nañ seen seen seen seen frère te en plus côté Fadel aussi parce que moom mooy jigéen mm-hmm. la plupart jigéen yi suñu génn kenn rek yaa ma gën a xam ñëpp ay kii mais boo saa yoo ko waxee rek mais dina la sànni xam nga dund lu muy dund en secret tamit mm-hmm. tamit alors euh, mais mais en fait mais comme dund nañ ko ñoom ñaar deux ans. est mm. kon bi ñuy takk c'est vrai que takk moom ñëpp dañ koy xam mais est-ce que ak mariage bi euh, maanaam euh, buzz bi mu am. Mm-hmm. est-ce que waruñu koo nëbb foofu tamit waruñoo nëbb tamit tuuti tuuti takk bi comme ça def ko lu simple. comme yenn mm-hmm. gars yi ñu comme lu simple waaw relation mën nga ko nëbb ay génn yooyu noonu mais mariage mënoo ko nëbb mm-hmm. benn côté. def nañ lu ñu waroon def ay xale lañ ay jeunes lañ mm. pourquoi pas fêter seen mariage parce que benn yoon la ci ci ci sa vie c'est pour l'éternité te bëggante nañ ñaari jeune la mënul mm-hmm. ñàkk lu mënul ñàkk la woon li ma gis mm-hmm. comprendre mais de l'autre côté aussi gis naa ay célébrité yu bari suñuy marié wu dañ koy def lu simple day yem ci kër gi mm-hmm. ñu yemale ko fa loolu tam c'est bien mais je me dis affaire yi ci sénégalais yi la tolluwaay la ay jeunes lañ comprendre ay jeunes lañ te ci Sénégalais ñoo leen war a bàyyi ñu gérer seen ménage ñu sëy comme lu mu ko waxee rek nee na nañ ma bàyyi ma sëy dañ ko jël interview nee na Sénégalais nañ ma bàyyi ma sëy suñ ma bàyyi rek ma dinaa gérer li ma war a gérer. Mm-hmm. mais mais que est que la question est-ce que c'était utile laaj bi est-ce que c'était c'était utile suñu collègue moo ko laaj. Mm-hmm. parce que dañu ko lan ngay wax détracteur. le nom détracteur man en fait ça me en quelque sorte. même mm-hmm. ko parce que ñoo bokk est-ce que tur boobu jaroon na ko ci wax bi looy wax say détracteur lu tax muy utiliser mot détracteur lan moo tax sax mënul wax ni looy wax say fans wala looy wax say mbokk wala looy wax say si que moom déjà laaj bi rek créé na ko ay noon quoi en fait tamit ñun ñun parfois waaw des dañuy exagérer des mm, dañuy ëppal ba ba si mariage yi am na ku ko jël interview ne ko di ko expliquer la nga xam ne mënoon na ñàkk tamit ay question yu mënoon ñàkk la parce que nee na ko dégg naa ni dañ la da nga ëmb ba deux mois moo tax. ñu takk la si. ñëpp li ñuy laam-laamee man maa la koy wax dégg naa ne da nga ëmb ba deux mois moo tax ñuy laam-laamee mariage mais ba mu ko waxee automatiquement la fille dafa tiit mm-hmm. parce que mi ngi neen nii parce que imagine ku nekk si joie joie am jour lu tol ne jour de mariage am topp ko ñëpp caméraman yi et lépp topp ko nga koy demandé loolu ñun tamit dañoo war a xaw a wàññi un peu. Mhm. dëgg la suñu liggéey la mais mhm. nañ xool nuñ koy defee. Mhm. loolu moom rafetlu ma ko moom. doy laal jàpp nga ni bon question bi c'était pas c'était pas utile en même temps c'est trop. daf ko offensé ko en fi mu ko fi mu ko posé wii foofu demee noonu. mënoon na et ñu ngi koy laajee nit à la à la à la limite parce que jàkkaarloog nit ki ne ko. dégg nañ ni da nga ëmb bu ñaax en fait yow mi koy def. Euh, stress si si mm-hmm. si si jour am. Mm-hmm. yow yow mi koy def sax d'ailleurs yaa ngi liggéeyal yaa ngi bëgg a liggéeyal site bi site bi nga nekk ngay bëgg a liggéeyal. Mm-hmm. mais a yaa ngi yàqal sa bopp. parce que bu la nit si benn organe. bëgg la jël ah, bu seetaanee vidéo gëw ma ni dina laaj parce que dana kii elle est agressif. parce que danaan kii li laaj nii kenn du ko laaj lii nan ndax ngay nit ku nekk si euh, sëyam nga naan ko. jour de mariage am jour de ah, nga naan ko. dégg nañ ni da nga da nga da nga ëmb ëmb ëmb deux mois. di ko man moom yooyu du ma ko mos a laaj quand te maa ngi conseillé. Mhm. conseil mais dañuy mhm. xelalante rek. Mhm. ñi nga xamante ni ñoom ñooy faral di tàllal micro yi ni yàlla day maytu au delà de ça. métier bi ñun comme ñun moom dañoo weex donc tout le temps dañ naan site internet yi. gars yi xamuñu dara ay mari lañ ku ñëw nañ ko jox micro donc ñun ñuy tàllal micro aussi nañu jéem a di professionnel ndax c'est assez normal et bien et logique quand même. waroo jàkkaarloo nit ki ko laaj yenn question yi donc euh, li ma la bëggoon a mooy buzz bi mu àndal wax naa la ko mais am na benn waay boo xamante ne def na buzz ki taxaw ci wetam di xelu xeelu pour <laughs> la. la fii la fii non la fii. ba Adama direct la def. direct la nii woo Fatel ne ko. ci sa ginnaaw lan lay xeelu. Fatel rafetal quoi Fatel rafetal te du dama dama dama kontaan ci loolu nee ko bëtam nii la mel. Mm-hmm. yow noo gisee soo àndaloon sa xarit tey jaar mu taxaw à gauche wala droite xoolee la boobu xoolee xool. dama xoolee la xool yow looy xam li ma xam nag ba ma paree nopp dama ko ci wax dara. parce que tamit Sénégal da ngay ñi la gën a jege des fois ñooy nekk say noon du ma ne nag noonam la je ne sais pas peut-être la mais peut-être kii mais xam nga Sénégal moom fii loo fi def def fi jàmm ndax boo ko fi deful. Mm. Adamo direct la def. Mm-hmm. direct mm-hmm. dal ci kawam expliquer mais. peut-être nee na ko bëtam yi nii la mel et tout. peut-être aussi dafa tombel peut-être tamit dafa noonu la sama impression ba je ne sais pas xaw ma ko mais xam naa ne daal du geste bu nice. Mm. yow yow moom say bët melul noonu yow. non mm. regarde-moi. Mm. <laughs> alors ba léegi yéen ci seen émission les waxul ah lees waxul moom lu lees waxul rek ñu dañu koy wax fii ci plateau bi ah donc alors dañuy enchaîner ñu dugg ci équipe nationale. dañoo euh, masinil ak waa Guinée donc euh, Guinée ñoo ko mujjee woon door depuis 2006 ah donc voilà ñu doon xaar match bi def très souvent derby la très souvent derby Afrique de l'Ouest la saa yu ñëwee rek day am tuuti werante ndax presque plus de 2 millions de de Guinéens ñi ngi fii nga xamante ni moom mooy Sénégal donc ñoom suñuy cousin lañ. Mhm. mais match bi gis nga nu mu demee Guinée xawoon na waaw dëgëral na. Mhm. Sénégal deuxième mi-temps bi ñëw kii donc xam naa doo analyste euh, de football doo doo expert de foot. mais gis na gis nga loo gisee ba pare. gis Ouzin li ma gis loolu nga gis loolu ñëpp gis. Ouzin <laughs> wax léegi. ba match bi tàngoon na premier mi-temps bi ba ñun tiitoon nañ nag. Mm. premier mi-temps bi gars yi tiitoon nañ. voilà xama rek ñun jigéen ñi xamuñu dara si football mm. mais am na yu sew sewaar ya nga xam ne mën nañ ko mën nañ ko mën nañ kii daal te dañuy toog suñu frères yi ñuy expliquer day dugg fii tamit mm-hmm. mais dem nañ ba deuxième mi-temps affaire xaw équilibré tuuti nii nii rek mm. mais bu léegi daal nañ xaw a yokk affaire yi. yaa la wala lal. yaa ngi Cissé xamul dara. ba ah, a man dëgër bopp. ah peut-être. Mhm. Ousseyn. Mhm. duma ci professionnel comme li kooku waxoon nee na bàyyi leen ñun professionnel yàgg ci football ñu wax ci mhm. football waaw gomis moo ko waaw nee na ñu wax ci instant yi ñëpp ay jóg di wax man sama côté bi may waxee mooy beneen cadre bi muy sëriñ yi sëriñ yi ak ak yenn yenn kii yi xas joueurs yi tamit dañ koy xaw di bàyyi un peu parce que tamit je me dis football dafa metti quarante cinq minutes doo toog yaa ngi daw dem ñëw fat fat gàdd la fii xama mm. dafa metti trop dëgg la ñun essan yi ñoom ñoo ñu représenté donc dañoo war a def seen képp lay kàttan mm-hmm. c'est vrai que dañoo war a def seen lépp pour ñun mm-hmm. mais ñu tam dañu am xaw am compréhension ci ñoom comprendre te xam ne affaire bi neexul te ñoom bu nekkoon mënuñu woon dara duñ leen teg foofu mm-hmm. tamit mais sëriñ si ñoo war a wàññi. Ousseyn ak seetkat yi ak seetkat yi sonal nañ ñu. instant bi da gis benn sëriñ génn. ne match bi li ma gis 1-0 lay doon wala 2-0 beneen jaara bu nekk beneen sëriñ mooy toog fe pour mun a daaneel sëriñ boobu day dem mhm. def mun dañuy xeexante seen biir mhm. imaginez yow ñun. benn nation ñu bëgg am dara ay sëriñ di xeexante seen biir ci kii wax na lii loolu damay fexe la tuuba du du antu est-ce que comprendre léegi loolu noonu daf ñuy sonal aussi daf ñuy sonal sonal nañu trop loolu nañ wàññi mm-hmm. sëriñ yi nañ wàññi. Mm-hmm. Salma Ndom ci la bokk ah mbokk jigéen la moom moom. ah Selbé gis nañu waxoon na premier match bi paretil que la mu waxoon bon man jotuma ko suivre interview mm-hmm. mais sama benn xarit bi ma wax naa ma Selbé Ndom ni mu waxoon premier match yi moom moom moo am. Mm-hmm. mais deuxième match bi xam naa peut être yéen à travers seen commentaire di ngeen wax ndax li mu waxoon deuxième match bi am na wala amul. Mm-hmm. mais est ce que euh, bon man en plus damay dégg tamit ñu ne parfois ba euh, Moustapha Dramé sax waxoon na ko ah. waxoon na ko fii suñu plateau nii dafa li ko jaaxal si Coupe d' Afrique mooy dafa am ay ñoom dañuy yëkkati alal yu bari def ko. fay ay sëriñ pour Sénégal bañ a sori loolu noo mm-hmm. ko gisee quoi. loolu moom bu dee lu am la lu ñaaw. Mm-hmm. parce que xam nga des fois mën nga dégg dara mais mën nga ne lii du dëgg wala genre mais des fois boo demee ba gëstu ba xool ba ba ci biir da xam ne li ñuy wax dëgg la. Mm-hmm. mais je me que ni sa nation. sénégalais dañoo war a avancer. aussi sénégalais war nañ dépasser fii. war nañ bàyyi xeexante seen biir. lan la lu ko fi jaar. sénégalais bu génn fii dem extérieur sax laa la jox exemple boo génnee dem extérieur condition yi ngay gis yeneen nation yi ñu koy am seen seen seen seen seen seen seen gouvernement di leen ko jàppale ñun amu fa ñun boo si liste bi dégg na liste dañ ko croire pour ñu jàppale la yow nga ñu nga ñëw nga ni Ouzin yow lii nga yu jël la dugal la ci fenn financé la jàppale la ci non am fa yeneen nation da ngay gis ñu leen di jàppale nañu nañu nañu jàppalante suñu biir te xam ne benn lañ. Sénégal bu avancé ñun ñëpp dañuy avancé. nañ bàyyi xeexante suñu biir yow sa nation nan lay fubalee ngay jël di xeex si suuf yow léegi Sénégal bu bu gañewul sa bopp yow yaa perte mais loolu après lan nga ciy gañe siisante bi soxarante bi nañ ko bàyyi. te jàppale suñu suñu équipe mu avancé dem ci kanam. loolu laa gis. dégg naa zone boobu ban poste nga doon man attaquant laa comme man du ma defaan damay attaqué. yow ci lan ngay attaqué yow ci ci ci. bàyyi nañ ma mm, bàyyi ma attaqué nee woon kay. Mm. attaqué bi nga doon da ngay attaqué si si leneen wala yow. non man si joueur bi lay attaqué Ouzin bul sori. Mm. ci joueur war a nga war a attaqué waroo xaar. si néegu seeg nga wax. mais lépp da nga koy jàng ci war a taamu attaqué bala ngaa. non Ouzin man damaa damaa calme. d' accord mais mais ndax a fait fi ñuy tëjee waxtaan bi. ñu ngi si catal catal catal émission bi fi ñuy tëjee waxtaan mooy naka nga gisee loi bi nga xamante ni gaa yi ñu si coow nañ ko voté ñu ko voté am na député yu bañ même fekkee ci n'est pas trop politique mais sa gis-gis ci loi boo xam ne dañ ko war a voté pour dagan maanaam pour criminaliser mbiri ñaari tur yi góor jigéen maanaam pour Sénégal ñu signé charte boo xamante ni képp képp ku ñuy jàpp borom ñaari suñ ne rek dañ koy jàpp dañ jàppee comme crime quoi en fait dañ koy dañ lay accuser comme criminel man de gis naa ne loolu bu ñu ko defee lu baax la mm-hmm. parce que instant bi coow li bëri na trop trop trop mm-hmm. mais ñun suñu diine moo ñu may loolu mm-hmm. suñu diine daf ñoo wax ne carrément loolu daf ka dagana daka araamal boobu ñaari diine yëpp muy chrétien musulman ñëpp daka ko araamal baaxul du lu baax du lu baax si réew te gëm naa ne Sénégal du lu ñuy signé gaw ma ni dinañ ci d'accord xalaatuma ko sax loolu du sax débat ma je me loolu du sax débat. non am na député yu nangul signé tamit c'est un peu dommage yu nangul signé. nangul euh, projet de loi bi nangu nangu nangu ko approuvé quoi en fait maanaam nangu comme signé ni man d'accord naa ci lii nañ ko nañ ko nañ ko araamal ak yooyu. mais dans noon normes loolu waru fee am. Ouzin Ouzin loolu war am ci dëkk bi ci dëkku l'islam la tamit. ci boole lesbienne yi tamit bëri nañ ci dëkk bi trop. lesbienne beeg. yow parfois parfois du la arrivé gis sa benn moromu jigéen di la demande ami Facebook après na. du non non du ñàkk du ñàkk da ngay gis ñoo xam ne da ngay gis ay les envoyé ay salut xam nga léegi moom dëkk bi léegi koy woo bébé nga koy woowee. Mm-hmm. sa copain beeg sa xarit beeg sa lépp. Mm-hmm. bébé bébé bébé après yow booy dégg loolu da ngay fonde comme mbedd bi la rek mais da ngay dem aussi bi après. dañuy gis ne kii dafa louche. Mhm. du ma ci sori tamit ma bloqué la nekk si leneen. mais mhm. waaw doxoo si yooyu daal. non doxuma si yooyu franchement. góor daal xam naa rek. Ah, <laughs> man non man euh, ndeysaan xam man moom ma ma jigéen bu rafet. waaw war a xam da ngaa bëgg jàng nekk si man jigéen da war jigéene xam ma xam ne jigéen laay waxal ma xam ne jigéen laay communiquer bari mhm. ma sax ay xaritu góor mhm. que yooyu dama koy dama koy dama koy éviter quoi parce que demande am yi bon après doo comprendre quoi man yenn mots yi soo ma koy wax sax en ñu nekk góor mhm. nga utiliser yenn mots yi danga ma neex man danga ma neex boo insister benn man la merci beaucoup nga insister da nga ma neex dama lay parce que man bëgguma góor di am freedom boobu di wax moroom góoram yéen it mooy quoi man loolu góorewul daal. mais mais mais des fois comme yow ci li nga nekk nii am na nga xam dañ lay gis ak bëggal la seen bopp. ah bien sûr waaw mais bul bul bul ëppal quoi ay ah, dama neex bul def laa yëfu jigéen. bul insister daal bul daal Ouzin daal bëggoo la dugal. non ma jigéen wax da nga neex d' sa voix bi neex d' accord Ouzin macha allah li ngay def am solo macha allah d' accord. mais soo mënoon góor dañuy mer de. non non jigéen moo la fi jàllale de lu grand laa def. <laughs> waa dëgg neexu ku ñu fal ñoo la fal waali maa ngi waali 2009 la Sénégal la jigéen ñi doon euh, dox ci circulation bi. bi mu mhm. génnee premier album buy noonu su ma jum 2009 xam nga 2007 xam naa bisu après dina ma mhm. ndax moom fan si waali la. Mhm. ñoom bi ñuy dox ci circulation bi dakaar jigéen ñoo doon yor album waali bi di ko forcer di ko forcer borom oto yi ay jigéen kese sol seen i tout ñoo xamante ni na nekkoon ci wàllu famille bi quoi. waaw wàllu famille pour vous dire jigéen ñi si bëriwul ku fi mm-hmm. ku fi am benn doole bi. jigéen moom mooy moom mooy nekk sa. mais bul fàtte sa mbokk góor yi tamit. waaw ma ay Baay Faal lañ sama gars maa leen di bëgge di euh, euh, balaa may nuyoo di tàggatoo yow looy tàggatoo. maa ngi nuyu di leen wax ne. Mm, kontaan nga. trop. Mm. parce que dafa may ne xam nga ñu dugg ci actualité li xew si dëkk bi parce que tay dëkk bi non man baa nga dugg ci vie ah ñun waxtaan nañ et pourtant dugguñu ci vie vie privée jàmbur mhm. dem des fois damay contre ña nga xam dañuy nekk ci vie privée jàmbur parce que je me dis ak lu mënti doon rek mhm. vie la moom mhm. moom la concerné mais du ñàkk artistes yi ñu gis actualité ñu waxtaan ci xelalaate xel kii du doy daal conseil du doy daal comprend nga mais pas nga dugg ci ay vie privée jàmbur non loolu ñun duñ ko def sax. d'accord ñoo dépassé foofu lan ngay tàggatoo mbokk internet maa ngi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant di leen gërëm mm-hmm. parce que. waaw maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que mm-hmm. imaginer li nga toog. Mm-hmm. ñaata minute lañ toog di waxtaan. ñu ngi toog di ñu seetaan amuñu seen fay. su suñ fi toogee sax c'est grâce à ñoom ñoom buñ fi nekk woon ñun duñ fi nekk. Mm-hmm. comprendre nga mm-hmm. maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne ngeen su seen émission lees waxul mm-hmm. c'est tous les samedis sur Dakarnet. alors c'est tous les samedis sur Dakarnet ça a été un plaisir de vous servir Ouzin ngeen doon àndal mu ànd ci ak jaara émission bi nga xamante ni désormais mu ngeen ko am chaque week-end fii nga xamante ni moom mooy Dakarnet dañuy relater information yi gën a fës ci semaine bi nga xamante ni moo nekkoon ci euh, régie bi mooy euh, Bisou euh, assisté ou bien accompagné par frère am di Badji Euh, di euh, nuyu bu baax a baax ki nga xamante ni ñu euh, ngi ci Tima Ba borom anniversaire bi ni ma Ousin boo ñëwul dama lay mere Tima borom caaro yi Tima doomu nday nday Ngom ak ki nga xamante ni mooy Miss Tima maa ngi lay nuyu di la souhaiter un joyeux anniversaire. di mhm. souhaiter joyeux anniversaire tamit sama beneen xarit anniversaire dañuy bari te gars yi boo. mais mais Ouzin du ma faat samay doom ndey di mhm. xap di di di souhaiter un joyeux anniversaire à Sanou. Mhm. maak moom ñoo bokk série bi ñuy def. comme xam nga ak Bas. borom école yi borom sem Grand Yoff. boobu coach la. sama xarit la sama doom ndey maak moom depuis enfance la. di souhaiter un joyeux anniversaire à notre femme. ah chéri Nabi Moustapha moom depuis parcelle mm-hmm. nee naa ko yaa moom parcelle mm-hmm. xale boobu moo teg tànk parcelle. <laughs> yow yaa teg tànk Grand Yoff. merci beaucoup ah, <laughs> jaajëf Tadia maa ngi lay bëggee bu baax a baax le vrai Tadia borom 100 pour cent Sam Sam frère maa ngi lay souhaiter un anniversaire loo dund dayul. Tadia dundal waay jaajëf et merci beaucoup. jàmbaari l'islam. jàmbaari Xelcom nee na lees ooy nee na lees waxul jaarama digal bàyyi góor